matula mbokki julli ñu ngi leen di nuyu di jiite ci nuyoo bi sëriñ Tuubaa Seex Muhammadul Muntaxa di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko fi la tëral ko waaye di leen nuyu ci turu sëriñ Afiya bu sa imaam mi nga xam ne mu jiite daayira Muxaddamatul ma te yàlla dogal nañ baaxoo def at yëpp bu ñu màggalee ba mbokki taalibe yi nga xam ne dañoo seq ñoom liggéey bi te nekk ci fu sori fi màggal si ñu tànn fa ay nit ñoo xam ne ñoo ñëw teewal fa ña xam ne ñoom ñoom ñoo ànd ak ñoom liggéey ba te ñu nekk ci barab bañ jógee ni ko daa ko defee noonu lañ ko defee ñu ci jotaay bi ànd feeg sëñ Abdoulaye Bousso Moutalib mi nga xam ne mooy secrétaire général daayira bi Moukhaddamatoul Khidma ak sëñ Abdoulaye Bousso Moutalib mi nga xam ne mooy adjoint ak sëriñ Fallou Mbacké Cheikh Touba mi nga xam ne mu jiite organisation waaye bokkaat ci commission sociale relation extérieure bi ak sëriñ Abdou Khadir Bousso mi nga xam ne ñoo yor wàllu communication bi waaye sëriñ Assane Mbeng nekk fii mooy bokk ci commission culturelle topp ci Abdoulaye Bousso Thierno mi ko yore ak sëriñ Abdou Khadir Mbay ak kilifa yi daayira bi ñu bare bari ñu ñu àndal bokk ci commission bi ñu ñëw fi ngir dalal leen mu mel ne tey ni ko daa defee tànn nañu ay ñu jàqal liggéey bi ñëw nañ fii tànn ay nit ñoo xam ñëw nañ ànd ñu liggéey bi xam naa ne waxtu we xat na man nit lu mbàyyi jiiteem ñëw ci yow rek xam ne yitte la ak yëg waaye kenn ku nekk xam ne fi ñu toll coono màggal gi yëpp waaye yàlla sunu borom dogal liggéey bi ñu séq tax ñu war di ko waxtaanee di saafonte loolu rek mooy mbégte mi ba tax lu jamono xat-xat ñu ko ci jéem a boole ci lool nañ ci am mbégte baax di jot li cant waa daayira Moukhaddamatoul Khidma gépp seen taxawaay bu rafet mu mel ne ci jataay bi teew na fi waa Mali Serigne Mbaye Thiam teew na fi di ñoo xam ne dañoo dugg si ci daayira bi dugg si ba am doole bu bees ñoom ñoom suñ xaadim ñing ak sëriñ Mali Wade ak soxnaam ñëw nañ fi waa Argentine tamit ñoom ñu doon ñu gën a jaajuwaat ren ci màggal gi sëriñ Dame Cissé teew na fi waa Côte d'Ivoire sëriñ Touba Lo ak sëriñ Sadex Kan moom mi ci jotaay bi waa Espagne ñi nga xam ne yàgg nañu ànd liggéey bi te sëriñ Assane Diop mi nga xam ne yàlla dogal na mu bokk ci ñi coordonné liggéey bi di ci taxaw taxawaay rafet ñëw na ànd ki jiite liggéey sëriñ Tuubaa foofu di sëriñ Mbàkke Njaay ak sëriñ Modou Diop di Alaaji Modou Diop mi nga xam ne euh, ku ràññu ko la ci liggéey bi ci foofu mu nekk waa Portugal tamit sëriñ Mbay Sow mu ngi ci jataay bi ñëw na teewal fi waa Portugal waa Amérique sëriñ am Laam ñëw na teewal fi waa Amérique waa Angleterre sëriñ Fallou Diop ñëw na fi teewal fi waa Angleterre yépp kon mu mel ne liggéey bi ren nañ ko daa soññee mi ngi gën a yaatu ndax am na réew yoo xam ne ni ko waxee ñëw nañ ren ànd na ñun liggéey bi danañ ci ñëw ci kanam waaye bala ñu def dañu njëkkanteeg waxtu yi jox kàddu gi sëriñ Mbacke njaay kenn ku nekk ñu fi teewal kenn boo jëlee ñaari minute jot li say nuyoo ngi teewal fii ñi nga xam ne ñoom nga jógee ak ci jataay bi aousu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barakat seexul xadim mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di jiital ci nuyoo bi ak siyaare bi sëriñ Afia bu seen mi toog ak mbooleem ñi nga xam ne mu la bokk liggéey bi yëpp tàmbale ko sëriñ Abdoulaat bu seen mi toog buñ ko tuddee rek dana mën a yóbbaale ñëpp ak sëñ Fallou Mbacke ak mbooleem ñu nga xëy ñoo seq daayira Muxaddamatul Xidma bi yëkkati kàddu ñoom ci turu fédération bu Touba Espagne bi yëpp waaye kàddu yi kàddu yi sant la kàddu yi ngërëm waaye kàddu ñaan ndax yaakaar naa Touba Espagne ak Muqaddamatul Xidma naka jekk danoo àndoon liggéey bi waaye nag daaw jéeg Sëriñ Touba Cheikh Amadou Mountakha dikk gën ñoo dëgëral sunu ànd muy bi muy joxee liggéeyub tàpp yi wax ne kon na ngeen ànd woon lii da ko gën a rafetal gën koo yokk kon mel ne suñ digganteeg Muqaddamatul Xidma moom ah, doonatul ñaar kenn lan ñoom waxi tamit ci suñ tuur suñ kilifa gi fi toog di sëñ Modou Diop buñ ko tuddee rek dana mën a yóbbaale mboolem waa Espagne gi yëpp di sunu wayju di sunu lépp kon sëñ Afia ñu ngi yëkkati kàddu ci turu waa Espagne gi yëpp dana rafetlu liggéey bi bu baax nag di ñaan nga yàgg ko jiite ñu la fee fekk waaye tamit di yëkkati ay kàdduy sant waaye kàdduy soññee ñun ñi nga ñoo nekk Espagne nañ góorgóorluwaat bu baax ci doyre Muxaddamatul Xidma bii ndax waxtu wu ne day ñeñ ciy dox waaye nag lum maanaam mbir moom fekkente yaa ngi ciy dox te waxtu wu ne nga gis fan la koy dugalal loo góorgóorlu doyut tàmbalee ko ci wàllu koor gi ndax wérante woon ne bu koor gi dikkee gis ngeen li nga xam moom lañ fii joxe ci ay ndogu ci ay doomu aadama yoo xam ne dina waroon a tumuranke dikk ci jumaa ji di fi ndogoo loolu kon ñun suñ taxawaay xëy na yéen de gis ngeen ko waaye ñun ne xeeb nañ ko lool tey maa ngi soññ sama bopp di soññ mboolem ku ñu déglu lépp luñ ci jàppoon ñu gën koo dolli su màggal gi dikkee tamit li ngeen ci fare ci lépp lu ci aju ci wàllu jumaa jeeg berne yéeg yëpp loolu tamit day xëy na yéen a ngi defe ne def nañ dara waaye man ne dama koy xeeb lool te di gën a soññe ñu gën ci jàppaat bu baax a baax kon nag liggéey baa ngi nii maa ngi yëkkat sama kàddu képp koo xam ne yaa ngi ciy jàppoon di ci dox na nga waat sa ñoom képp koo xam ne jëppoo ci woon te nekk Espagne tamit naa leer na ndigal li moom mu ngi nii rek ndax def naa dundal doomu aadama dafa bokk ci li nga xam ne ak jaam yàlla gën goo kawe kon nag ñoo ngi sant bu baax di soññ waa Espagne yëpp di leen sant di leen gërëm sëñ Abdou Lahad xam naa ñu bañ a guddal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Mbacke xam naa ñu doonal waa Mali Mali sëriñ Mbaye Thiam mu jege si nii bu defee ñoo xamal ne am na ay mbokki taalib yi nga xam ne dañoo nekk ci réew yi nga xam ne ren jii ànd nañu ñu liggéey bi. ñooñu bokk nañ ci fédération ba Espagne ànd na ñoom liggéey màggal Tuubaa gi daayiru Taysiru Asir Tuubaa Uruguay ànd nañu ñoom liggéey màggal gi daayiru Nuuru Daari Tuubaa Danemark ànd nañu ñoom liggéey màggal gi Tuubaa Pisa Italie ànd nañu ñun liggéey bi tubaa Angleterre Serigne Fallou Diop ànd nañu liggéey bi Tuubaa Italie Serigne Darou Touré ànd nañu liggéey bi Fondation tubaa France Serigne Modou Kara ànd nañu liggéey bi daayira Muxaddamatul Xidma Touba Mali ànd nañu liggéey bi Sëriñ Mame Balla Gueye daayira Muxaddamatul Xidma Touba Côte d'Ivoire Serigne Touba Lo ak Serigne Sadaka ànd nañu liggéey bi fédération daayira Miftahul Nasri Touba Argentine ànd nañu liggéey bi Burkina Faso Ahmadou Bamba Sougou ànd nañu liggéey bi Amérique Serigne Cheikh Jonn ànd nañu liggéey bi yi yi nga xam ne mooy loo xam biñ tàll loxo ngir ànd ñu liggéey bi ñëw nañu ànd ñu liggéey bi kon ñu jox Serigne mbay Thiam mu wax ci turu waa Mali asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi nuyu képp ku nekk ci ron mbaar mi di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di sant sëriñ Touba di jëfal Cheikhul Khadim bu baax a baax ci jataay bu sell bii nga xam ne bokk nañ ko ak suñ kilifa yii di nuyu mboolem ku teew ci mbaar mi rek tañ bokk ak yow liggéey bi ndax lii Serigne Touba rek a ko man ni ko Serigne Touba manee nag li ci gën a yéeme mooy da ngeen di xool fa nga xam ne moo gën a sori wala fa nga xam ne dugal fa liggéey sax yombut ba ñoo ñooñu ñëw dugal seen loxo ci liggéey bi ba looloo tax ñuy sant sëriñ Touba saxoo ko dëkkoo ko kon jërëjëfa a Seexul Xadim euh, di leen nag nuyooleeg ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal nekk ca Touba ko muy sëriñ Ali Ndiaye mi ak Serigne Fallou Thiam ak sëriñ Mame Balla Gueye mi nga xam ne moo jiite liggéey bi man ma topp ci moom ak Serigne Mame Góor Dia ak ñëpp rek. bàyyiwuñ kenn ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jox nuyoo beeg siyaar bi sëriñ Afiel Bousso imam mu jàlleel ñu ko ci mboolem koo xam ne mu ngi ci biir liggéey bi yor ci ab bànqaas ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp euh, di tàllalaat loxo rek comme ni ko suñ kilifa gi waxee léegi euh, di tàllalaat loxo képp koo xam ne foo mën a nekk ci àdduna bi ak fu mu mën a doon liggéey bi nga xam ne mu xaddimaatul xidma mi ngi koy liggéey waxuma la sax ci biir Touba waaye li nga xam ne daa génn ci yeneen réew yi rek fi mu ne dem na bu muqaddimatul xidma sax ay social da cee sos yoo xam ne ñi ngi def ay ndimbal yoo xam ne ci yeneen réew yu mel ne ay Mali ay faneen ak faneen lépp ànd liggéey suñ Tuubaa rek a ñu ko may kon nag ñoo ngi profité ci occasion bi di woo suñ mbokku taalibe yëpp fépp foo xam ne liggéey bi yeggugu fa ñoo ngi sàkku ci ñoom ñu samp ko fa fa yéene kaa doxal lépp loo xam ne ruusee na ko fa ñu indi ko ci fii nga xam ne mooy jumaa jumaay seexul jii nga xam ne nee na képp koo xam ne feeñ nga ci dootoo nëbbu kon ñoo ngi ciy tàllal ñëpp loxo laneen la nga xam ne moo ci toppaat mooy fi liggéey bi yegg ba nga xam ne ma ngi fay dox ñuy def seeni addee moo xam ñoo xam ne dañoo def seen carte de membre di ko jaay comme ndigal li nga xam ne moom lañu koy jaayee fii muy deux mille cent quarante ñoo ngi tàllaat ñu loxo liggéey bi donte jàppoon nañ ko ak seen fukki loxo ñu gën kaa jàppeek seen fukki loxo ak juróom fexe fépp foo xam ne liggéey bi yeggu fa woon wala bépp taalibe boo xam ne yegul woon liggéey bi ñu fexe ba mu dégg ko liggéey bi nag bëkkee bokk taxul nga bokk ci moo tax képp koo xam ne bokk nga ci lépp loo man ci laxasaayu fas yéene kaa gën a sellal fas yéene fexe ba liggéey bi gën a ñoŋ ñoo ngi koy sàkku nga def ko ak mbooloo ma nga àndal ndax jumaay seexul xadim ji jëpp àddee joo xam ne takk nañ ko ba indi ko ci dëkk bii ñu koy def ci jumaa ji képp koo xam ne indi nga fi sa àddee ñu nangu ko rek ne alhamdulilah te xam ne àddee jooja seexul xadim nangu na ko kon nag ñoo ngi profité ci occasion bi di tàllal ñëpp loxo di waat suñ mbokku taalibe yëpp rawatina ñi nekk ci diaspora bi euh, na ñëpp ñëw bokk ci liggéey bi ndax liggéey bi ni ko wolof yi waxee rek noonu la demee bërigo ci mbartal la teg loxo mu dem la tegul loxo mu dem seexul xadim moo ko yoral di ko doxal boppam kon ñoo ngi ciy woo ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan jataay bi yàlla bu mu doon suñ mujjug jataay yàlla nañ ko daje at yu baree bëri ci barke seexul xadim jërë ngeen jëf wa salaam. jërëjëf sëriñ Mbaye Thiam ci kàddu yooyu jógee ci mbokki taalib yi jóge Mali yëpp ñu ngi sant di la gërëm di daal sëriñ Xaadim ñu ngi mu xam naa bu nappee sëriñ Dame Cissé mi jógee Argentine daal di jege si ñu jot a mu jot a kàddu yi waaye ci turu daayira bi daal ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm ci taxawaay bu rafet bi yëpp sant nañ leen baax a baax kon bisimilah sëriñ Xaadim Ñing su sëriñ Dame Cissé mën ngaa jege si nii. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki taalibe ñu ngi leen di di ko tàmbalee ci suñu kilifa Serigne Sidil Mokhtar di ci teg Serigne Mountakha Bassir Mbacké mi ñu yaakaar tey ak ëllëg di ziar Serigne bu so ak mbooleem ku ne ci jataay bi rek leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax da di moom wax dañ cee mënut lu bari ñaareel bi mooy fiñ ñu ko joxee ñu doon ñi fi gën a suufe gën fee tuuti dana tax wax ji dana xaw a jafe lool waaye jéem ci tuuti rek ndegam ndigal la waaw xanaa di gën a soññ suñu bopp di soññ mbooleem ku ne fii ci saal bi di ci teg mbooleem ñu ne ci bitim réew te fas yéene jot ci kàddu yi nii muy lu jëm rek ci jumaa ji mu xàddimaatul xidma bi nga xamante nii lu jëm ci jumaa ji ñoom lañ ko teg ci seen loxo fas ci yéene bokk bu baax a baax te koy rafetlu tey wane suñu mbetteel goo xamante ni mos ñoo yaakaar ne ñun mën nañ cee bokk wala bokk lii defar jumaa ji wala lu koy jagal ñun mën nañoo dem ba suñu dërëm dem ci wala suñu temps bu ndaw rek daat ciy dem waaw mu mel ne kon sant képp la ñuy def ak soññee ñu nekk fee ci dëkk bee ñu ne muy Uruguay yebal ñu suñu jëwriñ di Serigne Ndonga ñang ak mboolem ku nekk foofu rek ñu leen di seereel ne maanaam eh, li ñuy tàmbale leer nañu fi mu jëm leer nañu ne àgg na te mën nañoo gën a yokk li ñuy jëf mu gën a dem ne xam naa ne moom rëccu amu ci yokkute la ngëneel la ndaxte sori na sori goo xamante nii boo nekkee foofu noonu yaakaar ne di nga am loo xam ne mën ngaa fexe rek mu dem ci loxol sëñ bi mbaa mu dem ci loxol jumaay Serigne Bamba ji lu gën a kawe loolu amut bu ko defee ñu gën cee jaaju bu baax a baax waaw e, Serigne Malick Wade mi ñu àndal tamit ak soxnaam waaw da kenn ku nekk rek da nga ciy feeñal si yéene bu ko defee ñu leeral leen ne egsi nañu gis nañ liggéey bi dal na xel bu yeboo ñu gën a góorlu gën cee jàpp te xam ne lu dul lii rek leneen la liggéeyal sëñ bi kenn ku ne fenn fu ne mën nga ko faa jàppe mën nga ko faa jaarale mais moom lu wér moom mooy fii moom ko fi jaarale xam ne moom dal na xel daal dal na xel bu baax a baax a baax xanaa di sant rek di gërëm waa di leeral ne dañoo mënta wax rek ci mbooloo xanaa da di ndigal rek ñun ñu cee ñàkk ba ñu sànnee kàddu waaye daal kawe na lool ci suñu kaw kawe na lool ci ñun barke borom Touba. jërëjëf sëriñ Xaadim ñu ngi lay baax di jot li ay cant ak i ngërëm sëriñ Ndonga ak waa daayira tey sura asir yëpp Touba Rougué seen taxawaay seen pastéef mën na set ñu jox sëriñ Dame Cissé jóge Argentine euh, di ko mu sànni ci kàddu aouzu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wajaal xarimana xariman amina wa kun bi xifsihi lan daamina asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen di jiital ci bi sëñ Afiya Busa imam ak sëñ Fàllu Mbàkke ak sëñ Abdoulahat Busa mi ñu dendal di nuyu mbokki jëwriñ fi daje yëpp mboolem fu mën a jóge rek ci goxi àdduna bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di am mbégte bu baax nag ci teewaat di sant yàlla bu baax ci teew gin fi teewaat teewoon fi daaw del siwaat ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu defal ñu yàgg fee teew ay ay at yu bari ci barkeb Cheikhul Khadim di wax rek ci tuuru Touba Argentine ci jëwrin sëñ Mortala Sall ak Serigne Bamba Niang mi nga xam ne moo topp ci moom te tey jii mu waroon fee teew ànd ak man waaye dafa am ngànt kon ñoo ngi waxee ci seen tur ñoom ak seen ndigal ci mboolem fu fédération ne mboolem fédération Touba Argentine mboolem daayira bu aju ci fédération bi rek ñoo ngi leen di soññ di soññ suñu bopp ci liggéeyal sëriñ Seexul Xadim mu mel ne Muxaddamatul Xidma liggéey bu kawe la yor ndax euh, daa ambul lépp ci Touba du jumaa ji rek waaye lépp loo xam ne ëmb na oroma Touba ba moo ko ñoo ko yoree di ko taxaw ak képp koo xam ne rek yaa ngi ci biir daayira bi kon ñoo ngi soññu mboolem taalibe bu nekk Argentine ak foo man di bokk ci daayira yi ñu taxawaat bu baax taxawa taxaw taxawaat bu bees ci daayira bi nga xam ne mooy daayira Muxaddamatul Xidma lu jëm ci wàllu màggalu Touba kon daal ñoo ngi soññee ci turu sëñ Motala Sall ak sëñ Bamba Ñang ci mboolem fu taalibe nekk rek ci Argentine ñu bàyyiwaat xel bi ñu bàyyiwaat xel liggéey bu baax a baax a baax ba fu waay nekk rek nga def ko muy sa yitte loo ca dajale rek mu dem ci jëwriñ sëñ Motala Sall bu ko defee heure bu joxee ndigal rek ñu mën koo euh, tabbal ci liggéey bi nga xam ne ku ci tabbal sa dërëm rek yaa ngi ko tabbal ci liggéey bi Serigne kon daal ñoo ngi ñaan ci euh, bayta woow mu naan waqdi xawaayijal lasina daamu fi xidmati wa hab lahum maaraamu barke Cheikhul Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf sëñ Dame Cissé ñu ngi lay sant bu baax sant yàlla na noonu lañ ko fekk woon daaw yàlla suñu borom ñu fekk waat ko ñu ngi ñaan yàlla nañ ko yàgg fekk te maa ngi ngërëmal Cheikhul Xadim xam naa dañuy jox waa Angleterre Serigne Fallou Diop mu sànni ci kàddu xam naa su noppee ñu jox Serigne Bay Sow di sant baax sëriñ Lamine Kane mi ñëw bokk fekk si waa Espagne ànd ñoom liggéey bi waa France tamit sëriñ Cheikh Diouf dana ñëw léegi ci kanam ñëw na fi ànd fekk sëriñ Sidi Diop kon boo defee ñu jox kàddu gi waa Angleterre sëriñ Fallou Diop auzu billah bismillah inna waliyallah wajal kalaami rasida wa mursida wa fikrati nawir wa xalbi arsida barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullah bokk julli bokk taalibe yi rawatina waa muxaddimatul xidma te sëriñ Afiya jiite ko ak mbooleem ñi mu àndal liggéey bi noonu nag noo ngi yëkkati fii ay kàddu ci kër sëriñ Afiya di sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sant sëriñ Tuubaa di tàmbalee sama jëmm ju xeebu ji di soññ bépp taalibe boo xam ne yaa ngi ci biir UK bi di Angleterre ak foofu mën a nekk di la sant bu baax te di la ziyaar di leen xamale ngeen doon jëf ngir ñu jàpp ci liggéey bi jëf yi agsi na ndax waxoon nañ lim bi nga xam ne moom lañ dajale woon dëkk màggal ba yónnee woon nañ ko ci biir màggal gi loola bu soobee sëriñ bi danañ am danañ am vidéo danañ am leetar boo xam ne yéen ñëpp da ngeen teg seen bët liggéey bi nag liggéey la boo xam ne ni ko ñu baax ñuy waxee ji jàll waxee rek liggéey boo xam ne liggéey bu suñu borom nangu la tey damay faral di wax ne kenn ku nekk ci nun taalibe yi war naa natt diggam ak sëriñ Touba ba xam li muy jëf ci sëriñ bi sëñ baa ngi koy waaye fii ñuy liggéeyal sëriñ Touba jumaa ji moom képp ku am tawféex sab dërëm dugg fi nanga nga santaat yàlla baax te xam ne sëñ Tuubaa nangul na la sab liggéey ndax dërëm bu sellul wala xol bu sellul sëñ Tuubaa doon nangul kon képp koo xam ne nii sab dërëm dugg na ci jumaa ji ñi nangul la ko rek nanga nga sant yàlla te xam ne sëñ Tuubaa nangul la ko maa ngi soññu góor ñi di soññu jigéen ñi rawatee nag waaye to London bi nga xam ne mooy wakkaan xaqan xayana nasul mu'minina ci jëwriñ ji sëñ Abdoulaye Dieng foofu seen ndax liggéey bi sant bu baax itam sëñ Abdou Akim Mbaye nga xam ne moo ne ci kuréel yi ak yàlla dogal na bi ñu ubbi groupe yu këy mu xadimatu xetma bi ci ndigalul waa jumaa ji sëriñ Xaafiya te mu jaar ci sëriñ Assane joom ñoom moom itam ñu ngi koy beral cant ak ngërëm ndax sëriñ Assane ñun ñëpp war nañ ko mën a waa maasa ñaanal ko ndax li muy jëfal sëriñ Tuubaa nëbbuwul lu fës la loo xam ne kenn ku nekk ñu teg ndax man mii takk naa ko waxtu wu ne boo ko wooyee lu mu teel teel dina la wuyu lu mu guddi guddi dina la wuyu nga xam ne yitteem yëpp sëriñ Tuubaa la ko jox noonu ko joxee sëriñ Tuubaa nag te dib taalibe ni nun kon waruñu ëpp fulla waruñu ëpp fayda waruñu ëpp jom waruñu ëpp pësteef kenn ku nekk daal na nga xam ne liggéeyam sëñ Tuubaa bi soo ci feeñee dangay ngay feeñ ba faw waaye ku ci nëbbu itam wala yaasubillah ñu fidilwaat laxasaay te xam ne ñii fi nekk fii ñu nekk nii ñun lañ fi nekkal ñun tam fañ nekk nun leen fa war a nekkal te damay faral di wax ne nun yi bu ñu xamoon li ñu sëñ Tuubaa defal ñii na ci jumaa ji nga xam ne di ko ko saytu waxtu wu ne guddeeg bëccëg ne mooy seen yitte kon ñoom waroon nañ jenn yitte ju ñuy am di ko di dalal kenn loxo wala ñuy woote sax naan leen kaay leen warutool mën a am ñun nañ ci jàpp bu baax te ne ku ci jàpp sëñ Tuubaa moo fayal boppam ñu ngi sant ñëpp nag di soññu ñëpp ndax waxtu wi daaw sëñ Abdou Lahad euh, ñu ngi lay sant bu baax yow itam ndax saa bu ma la wooyee euh, nga lu ma la laaj nga wax ma ko bañ ko ba weer wi sax bu ñu ko dee séntu yaa may yónnee yónnee vocal wala nga dugg ci groupe bi ne weer wi tey lañ koy euh, séntu bu feeñoon nga ne feeñ na kon loolu ñu ngi la sant bu baax baax di xam ne rek liggéey bi moom nii rek la kon ñu ngi sant yàlla bu baax di jullee ci yónni bi sallallahu alayhi di ñaan yàlla ñu yàgg koo taxawu te luñ ci jëf itam sëñ bi nangul ñu ko di ñaan la Cheikh Mouhamadou Mountakha mu gën fee yàgg gën a wér ba naal yi mu naalal Serigne ñun ñëpp ñu ànd ko moom àggale ko te kenn bañ a des ci barke Serigne Touba Xaadimu Rasuul wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf. jërëjëf Serigne Fallou Diop kaddu yi rafet na ñu ngi lay jot lu nuyee waa Angleterre yëpp teg ci loxo Serigne Abdoulaye Abdoulaye say ni mu jotal ko mbokk taalibe yëpp kon ñu daal Serigne bay Sow su noppee xam naa ñu teg ci Serigne Touba Lo Côte d'Ivoire Serigne Mbaye Sow mu fi teewal waa mu fi mu yëkkati kàddu aouzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil ala rasuli rabbil alamin barke borom Tuuba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit ji fi teew ak mbokki taal bi yëpp noo ngi leen nuyu te leen ziar tey nuyoo beeg ziar bi nag si Cheikh fi ngeen a di ci teg itam sëñ Afia so mi nga xam ne moo jiite muqaddamatul xidma di ko ñaanal lool mu yàgg fi te yàgg koo jiite tey tam yàlla defal nu tawféex ba lépp lu luñ ci def suñ borom nangul na ko waaw moom day kàddu yi daanaka benn la ñun ñëpp li ñuy wax benn la ndax xam le rek ne liggéey bi moom bii moo ci jiitu ndax damay wax sax sëñ Saliou Mbacke moom moom moom wax nañu yoon wi ba noppi ndax ginnaaw moo tuddee mbooloo mi mu xaddamatul xidma te liggéey bi yëpp di xidma liñ jiital ci xidma mooy bii kon nag yëpp dañoo waroon topp ci ginnaawam man ni ma ko gise ndax jumaa ji moom la fi sëñ bi def li fi def lépp ñëw fekk si ko te boolem li ñuy liggéey ci dëkk bi nag ak lu mu rëy rëy ngir ñu ngir waa jumaa ji képp lay doon pour ñu mën a julli si rek bu dee yoon yi ñuy liggéey ngir ñu mën a julli si jumaa ji la bu dee ndox mi ñuy gas ngir waa jumaa ji jàpp di julli la bu dee ñami nii togg ngir waa jumaa ji mën cee xewul ba mën a taxaw kon liggéey yëpp far sax ngir jumaa ji la kon jumaa ji moom ki ko tudde Muxaddamatul Xidma koo koo xam moo mën ñëpp Muxaddamatul Xidma nag waxuma la taxaw bi muy taxawaayu jumaay sëñ Tuubaa ji waaye li li ci li ciy jóge suñ bàyyi woon lépp gis waxtaani koor yi kese mu doy sëkk yàlla seere na at yi yëpp xëy na koor gi duma ma fekk waaye damay toog fa ma toog waxtaan yi niy def di ma jariñ loo xam ne nit mën naa nekk ca biir jumaa ji te du la ko jariñ ndax li ci am solo mooy loola li ñuy waxtaane foofa ay temi xam-xam yu am solo yoo xam ne waa dëkk bi dañ koo soxla julli di dañ koo soxla ñëpp soxla ko muy lu ñu war a xam ndax ñu mën a dëkkal Sëñ baay dëkkin war rafet wa gën a rafet ci dëkk bi loolu nag sama classe gi da cee bëri am na ñu bëri ñoo xam ne xër gee tax ñu ñëw waaye xamuñu mu xadamatul xidma nag tàmbali ca dinu woon ni ñuy jàppe ni ñuy sàppee ni ñuy duggee ci jumaa ji ni ñuy xaajale góor ak jigéen ni ñuy ziyaare barab bu tedd ba ca ni ñuy xamee suñu diine loolu kon mooy liggéey bi bon nag liggéey yi yëpp na ba day ñaare perti ba sax taalibe yi ba doo xam fooy tàmbalee fooy yam waaye man daal maa ngi soññ sama ci turu waa Portugal te maa ngi wax ci turu suñ jëwriñ sëñ Abdou Sey nekk ca Lisbonne ak sëñ Maxu Ñang nekk ca Portimao ak man mii nekk ca dëkk bu ñuy wax Porto ñuy soñu mbokki taalibe ya fa nekk yëpp di leen xamal ne liggéey yëpp a baax liggéey yëpp la sëñ Tuubaa santaane te moom la moom la digle itam waaye bi nu jiital ci liggéey yi daal mooy bii ndax waxaa naa ko léegi liggéey yëpp ci bii la ñuy sosi ndax mooy tax li ñu bëgg ci dëkk bi mën a nekk kon nag yal na nu yàlla may tawféexu saa su nekk ñuy mën a jëf ci liggéey bii waaw te di ko itam beral ay loxo nag ci biir liggéey ya ñu yor foofa waaw bu dee weeru koor wi loolu itam doy nañu jiital ko ndax sëñ Tuubaa weeru koor la jiitaloon ci léppam bu dee màggal gi nag màggal gi moom mooy yoon wi te loolu lépp boo ko xoolee muxaddamatul xidma moo koy taxaw kon nag nañ góorgóorlu ci liggéey muxaddamatul xidma ñun bokki taalibe fu ñu mën a nekk ci àdduna yi xam ne liggéey bii moom rek mooy liggéey bi yi ci des yëpp da koy ñëw ngir secourir ko rek kon yàlla nu yàlla defal feex li may mujjee nag mooy sant sëñ Assane comme ni ko sëñ Diop waxee léegi ndax sëñ Assane daal moom wax dëgg yàlla bëri ñu xam muxaddamatul xidma ci ci moom lañ ko xamee bëri nañu jëf ci liggéey muxaddamatul xidma ci moom moo tax ñu di ñu di ci jëf tey itam day seet sama classe gi nga xam ne ñoo gën a yambare mu fab leen teg ca kanam ndax ñuy góorgóorlu du la bàyyi mukk sëñ Assane du la bàyyi mukk lu toll nii weer te soññu la ci jëm ci Muxaddamatul Xidma loolu nag dafa lu am solo ndax xam gi mu xam ne day liggéeyal sëñ Tuubaa te liggéey bii benn jiitu ko ci moo tax du bàyyi mukk kenn dëkk yëpp ak réew yëpp amul fenn fu muy bàyyi te du la soññ kon sëñ Assane jërëjëf yal na yàlla fay mbooleem koo xam ne itam nag wuy na la ci woote bii ngay woo yal na ko yàlla fay di ñaan mboolem ñuy taxawu nag liggéey bii dara ko sëñ Afia ak ñi koy jàppale ñëpp yal na yàlla defal leen taw feex te defal nu ko yal na nu yàlla may kii kéemaan gun ciy jëfe ci barke borom Tuubaa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Bay kàddu yi rafet na kon sëriñ Tuubaa ñu ngi lay daa xaar nga defee ñu sant la baax ci kàddu yi jot ak jotal gi yëpp rek noonu nga ko waxee rek daa daayira Muxaddamatul Xidma ku ne xam na ne li diggante lu aju ci koor ak màggal ak gàmmu mooy yu gën a diis si moom koor ak màggal ak gàmmu donte ne weer yëpp ak fan yépp charge yu diis lañ yore dafa mel ne dañuy noddu xam naa ñu mel na ñett kàddu lañ dese waaye ñu nekk ba julli ba noppi sa ko yeggale ñu waaj dafa doo julli ba pare ñu ngi noddu wax Sëriñ Tuubaa Lo mi nga xam ne moo jóge Côte d'Ivoire euh, ànd ak Sëriñ sa dexkan ci yàgg fee ñëw yàgg fee ànd ak taba taxawaay yu rafet rafet xam naa mu jot laa lu ñu nu yóbbu sëñ ma Fari Ndiaye mi nga xam ne diggante Côte d'Ivoire ak Mali ak Afrique mi ngi cee liggéey liggéey bu rafet rafet kon sëriñ Tuubaa bisimilah. alhamdulilah bisimilah inna waliyallah wa ma tawfiq ya illa billah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa Euh, mbokki daayirul muxaddamatul xidma diaspora bi yëpp euh, noo ngi leen di nuyu lu bari te di leen siyaar euh, di jël nuyooyu ak siyaar yëpp rek teg ko ci loxol sëriñ Afiya Buso al imam bi nga xam ne si ne mooy jëwriñu jataay bi mu àggale lañ ko ci mboolem kilifa yi nga xam ne si ne ñi ngi fi teew yëpp rawatina ñi nga xam ne si ne ñi ngi ci biir jumaa ji buñ ko waxee rek sëriñ Afiya dana fekk moom dana mën a yóbbaale mboolem ñi nga xam ne si ne ñi ngi ci biir yëpp Euh, bu loolu jàllee itam ñu ñëw di siyaar mboolem euh, jëwriñ yi nga xam ni si ni ñoo teew ci jataay bi Eh, te jóge ci ay réew yu fasanti te lépp nekk ci diaspora bi eh, ñu ngi leen di sant bu baax ñoo ngi itam di leen gërëm eh, di leen jaajëfal di rafetlu baax pastif bi nga xam ne si am nañ ko waaye lépp dafa fekk ne ñun ñëpp dañu bokk ab jëmmu muy daje fi ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul mu fekk ne lii nga xam ne mooy mu daayirul Muxaddamaatul na jëwriñ ji fi daje yëpp mel na ne que wax nañ li nga xam ne si ne moom mooy sabab bi ànd liggéeyal Serigne Touba dafa mel ni que nag def ci sëb dërëm yombut xam suñu borom nëmm ko ci yow da nga yor alal ju bare bare bare am yéene def ko ci waaye bu fekkante ne suñu borom nëmmul ko ci yow doo ko ci def Euh, kon loolu kenn ku nekk war nga peesewaat sa bopp nga xoolaat sa bopp est-ce que yow sab dërëm mi ngi ci dem wala sab dërëm demu ci bu la leere ne sab dërëm demu ci na nga xoolaat sa bopp ba xam lan moo tax sab dërëm demu ci euh, ci biir loolu yëpp itam ñuy siyaar bu baax euh, ki nga xam ne si ne mooy jëwrin te nekk ci diaspora bi di yaatal liggéey bi muy sëriñ ma fëri Ndiaye comme ni nga xam ne noonu la ko sëriñ Abdoul Ahad bu sa waxee léegi ñu ngi koy siyaar bu baax di gis bu baax ab taxawaayam boo xam ne si ne mi ngi koy amal ci diaspora bi yëpp Euh, di siyaar bu baax itam Serigne Sadikh Kane bi nga xam ne si ne moom lañu àndal liggéey bi euh, tam mu nekk ci diwaanu euh, Abidjan. yàlla dogal man ma nekk ci diwaanu Yamoussoukro ñuy ànd ci liggéey bi muy daar mu daayira Muxaddamatul Xidma mu mel ne que am na ay yeneen i jëwriñ yoo xam ne si ni ñoo àndoon waroon a ñëw waaye mu mel ne yàlla dafa dogal ci ñoom am tënk daj dab leen euh, ñu nekk ci yitte yooyu xëy na balaa jate jataay bi jeex bu ko yàlla dogalee mën naa am ñu agsi fii muy sëriñ Mouhamadou Moustapha Fall euh, bokk ci ndaw yi nga xam ne si ne euh, ñoom ñoo représenté ci Touba Adjamé ak Serigne Bara Fall nekk ci xidmatul xadim bu Touba Abidjan ak yeneen jëwriñ ku mel ne que Serigne Aliou Thiam ñoom ñëpp jokkonte ne ñu xamal ne ñu ñi ngi ci yoon waaye dañoo nekk ci yeneen yitte yoo xam ne si daf leen a dab bu yàlla dogalee ñu nar a fekk jataay bi si li nga xam ne si daal mooy suñu kàddu ngir gàttal dañuy soññ mbooleem mbokk yi nga xam ne si ne ñi nga ci diwaanu Côte d'Ivoire yëpp kenn ku ci nekk lépp loo xam ne si ne loo ci daa def la nga góor góor lu ci yokk ko képp koo xam ne si ne yàlla dogaloon tam euh, defuloo ci woon tam nga fexe ba def ci te xam ne lu ci waaye def sa bopp nga ko defal li nga xam ne si ne moom lañ koy jottalee rek mooy ñi nga xam ne si yàlla dafa dogal ñu yor seeni dërëm te mënuñoo fexe ba def ko ci nañ xoolaat seen bopp ba xam lan moo tax mënuñu ko ca def te xam ne képp koo xam ne si ni yàlla dogal na naruloo cee def sab dërëm bu ko sëñ bi nërtu nangu doo ci def sab dërëm kon nag na kenn ku nekk góorgóorlu ba feexe cee def saw ñax loolu nag bu ñu koy wax dañuy soññ suñu côté ci diiwaanu Côte d'Ivoire gi nga xam ne si ne foofu la yàlla natoo ñu nekk fa di fa liggéeyal sëñ bi waaye tam nekk fa di fi soññee ci daayirul muxaddamaatul xidma ñi ngi soññi mboole mbokki taalibe yi fa nekk yëpp euh, te leen sant te di leen gërëm mboole mbokk yi nga xam ne si ne ñoom dañoo daggoon carte de membre nga xam ne saa bu ñu la leen laaj seen i cotisation ñu daal di koy joxe ci mu gën a gaawee euh, rawatina li nga xam xam ne si mooy màggal gu mag gi ak li nga xam ne mooy leelatu na bii ak li nga xam ne si ne mooy weeru koor gi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi koy bàyyil xel saa bu ñu la tàllalee loxo ne la liggéey bi jot na rek kenn ku ci nekk daal di koy def mu sa yitte kon ñooñu ñu ngi leen di sant te di leen gërëm di leen jaajëfal di jaajëfal mboolem kilifa yi nga xam ne si ne ñi ngi fi teew yëpp eh, te représenté fi ay réew yu fasantikoo yàlla nañ ci dajeeg ngërëmal sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul bi barakati alhaaji Mouhamadou Alfadal Mbacké wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf sëriñ Tuubaa Lo kàddu yi rafet na lool xam naa ñu séentu sëriñ Cheikh Diouf mu fi wax ci kàddu waa France mu jege si xam naa balaa loolu dafa am loo xam danaa ci ubbi tàmbali ci sëriñ Abdoulaye Bousso Muxtaar mi wax ci daayira Moukhaddamatoul Khidma sax dana ci del si dafa am loo xam ne dafa yittee daayira Moukhaddamatoul Khidma te yéen dañoo baaxoo saa bu ñu dajee yéen lépp lu yittee daayira bi ñu waxtaane ko yéen kenn ku ci nekk lu mu man ci yitte ji saafaraw mu def ko loolu bokk nañ ci jumaa ji soxla nañ fi échelle yu gudd yooyu nga xam ne automatique lay doon ku da xam na ne léeg-léeg booy saa sa wala dara da ngay ay weñ ba ca kaw ñu te jamono toll na foo xam ne am na échelle yoo xam ne boo bësee mën naa jóg ba mat fukki ak juróom kon nag bëgg nañ ci yoo xam ne lu mu néew néew dana guddee fukki fukki mètre ak ñaar jëm kaw nga ne boo da gisee lu lakk saasa ngay roof prise daal di yéeg ba kaw daal koy ba du yàgg du mën a euh, mën a diggante bu gàtt da ci mën a saasu lu bëree bari kon loolu yitte la joo xam ne daayira Muxaddamatul Xidma am na yitte jooju te saa bu ma saa am yitte ni ma ko waxee rek ci yéen bokk teel bi la koy tàllal seen loxo beneen bi tamit ku ne xam na ne jumaa ji tapis fi nekk dana la soxla na ay machines yoo xam ne ñoo koy aspiré ndax tëpp yi dafay am jafe-jafe yi suuf te bu téye suuf foog nga war a am tëpp bu foore machine bu foore ñëw dindi suuf soosu kon nag loola ñu ngi tàllal sunu loxo mbokki teel bi fu ñu mën a nekk ci àdduna ñoo xam ne liggéey boobu sunu sunu liggéey la sunu yitte la yoo xam ne faa man a dem man koo saafara ñu ngi tàllal loxo ci loolu. beneen bi tamit oto citerne oto ndox ndox ku ne xam na ne am na dañoo yor ñaari barab yoo xam ne benn bu ci nekk dañu dañuy woo ndox léeg-léeg duñ ko mën a am benn bi mooy biir jumaa ji léeg-léeg nga bëgg a seetal doo am ndox waaye ba ci gën a amaat solo léeg mooy bàq ga nga xam ci nu laaju te léeg mu am jafe-jafe ndox ba ña xam ne jiitu ci kon loolu yitte la joo xam ne tamit yitte la joo xam ne bu ko yëkkatee kenn ko rek da xam yitte ji sa sa bopp la joo xam ne sa bopp amaan nga ci place boo xam ne war nga ko mën a jox am nañ bëgg nañ tamit atu camion camion yu mag yi nga xam ne day mën a jël mbalit nga xam ne saabu bu ñu dajale te mbalit duñ xaar di àbbi oto boo xam ne moo koy saf yóbbu ko ci sens rek danañ ko daal di mën a jël daal koy mën a tuuri ba wata ba daal di mën a gaarawaat ba benn jafe-jafe benn mbali duutu am ci liwa penc mi yi ay yitte la yoo xam ne dama ko ubbi nii waaye sëñ Abdoulaye bu sama muxtaar dana ci ñëwaat mu ko yéene yaatale ba teelu bu ñu fi jógee ak karim ku ko dégg xam ne yitte la joo xam ne yittey jumaa ji la du suñu yittee bopp yittey jumaa ji la ndax jumaa ji jumaa ji ñëpp la kon ñu jox sëriñ Cheikh Diouf kàddu gi bu noppee ñu jàll ci eh, sëriñ eh, ñu jàll ci ñu teewal waa Amérique aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuubaa gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam noo ngi santaat Serigne tubaa bu baax a baax a baax di ko gërëm bu baax di ko sant bu baax di ko gërëm bu baax noo ngi santaat sëñ bu sëñ bi bu baax a baax euh, gannaaw loolu nag maanaam daanaka wax ji benn la xam ne li ñu fi waroon wax wax nañ ko kon xanaa maanaam man la ma ci sos mooy. sant sëriñ bi bu baax ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi war na noo xam ne nun ñépp ne ni ñuy taxawoo jumaa ji kenn ku ci ne noonu la la waree kenn ku ci ne ak foo mën nekk ñoom nii ni koy taxawee noonu la noonu la ñu waree kon nag maa ngi soññiwaat ñëpp ci ne ñoom ñi koy taxaw waaye waa nan fexe ba ñun lépp lu ñuy soxla comme nun koy nen koy soxloo muy faju bu buñ buñ mu cey nag dina ko sant maa ngi beral soññee gi nag waa France maanaam euh, ci li gën a jëmp ci man li ma leen di soññi mooy gannaaw waa Espagne jën nañu ay tàpp yoo xam ne macha allah yu doy sëkk ba mu doy jumaa ji ak li jumaa ji lépp loo xam ne da koy ñoŋal ba nga xam ne fu mu toll mel ne lu bees nan nan taxaw ci loolu te maa ngi ciy soññi waa France bu baax a baax muy aspirateur yi nañ ci daa taxaw ndax buñ ko bàyyee fi mu leen ko waaj daan nañ dox ba ba ba ba mu dërkiis duutu neex a dindi. fii mu beese ngay ànd ak moom di ko di ko di ko di ko topp di ko nettoyé ba ba muy ba ba ba ànd ak moom rek mooy tax maanaam fu mu toll di bees kon maa ngi ciy soññ ñëpp maa ngi ciy soññ ñëpp gannaaw loolu maam ci sama xalaat it damaa jàpp ne ñun ñii nga xam ne suñu borom dañoo baaxee mu nekk ci kanam nit ñi di di di leen di leen di leen di leen woo man dama jàpp ne danoo war a fexe benn groupe boo xam ne ñun ñëpp dañ ciy lëkkaloo nga xam ne su amee yitte bu bu jàmp bu ne ñun ñëpp dañ cay dañ ciy dugg daal di jaayante ñun ñëpp ñooy jëkk jaayante ñun ñu ca ne woo nit ñu jaayante ca su ko defee maanaam loolee yitte ju daa def taxawu saafara wu ca ca ci ci ci ci saa ci lay doon te du yàq ca liggéey ba neen ba kenn ku ne di liggéey di di indi kon loolu maanaam sama xalaat la waaye jàpp naa ne euh, wa wa waras na cee dox jëm ci aussi. Ah, xam naa li ma bëggoon a wax lépp moom dana bari waaye maanaam tënk na ma tënk ci yooyu rek ba beneen yoon bu ko defee ñeneen ci danañ tënk danañ tënk li ci des ndax daanaka li li am solo lépp ñi ñi ñëw ñi jàll wax nañ ko te ñeneen ñi ñëw danañ danañ waxaat leneen kon nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ah, di wax ne wax dëgg yàlla ñëpp mat nañoo sant yéen itam. mboolem yéen ñi ci jàpp ci liggéey bi ba muy agsi fii ban ban ban ci ban ci yéem a góorgóorluwaat mu jëm kanam yëpp mat nañoo sant yàlla na sama borom boole nu taxaw barke borom Tuubaa jërëjëf sëriñ Cheikh jërëjëf kàdd yi rafet na man na pasteefu na xanaa ñu dalal sëriñ Adi Touré mi nga xam ne yàgg na na ñun kàddu soññ yu am solo jëm ci liggéey bi ci jóge ah, Espagne ànd ak sëriñ Mbàkke Njaay ñoom xam naa sëñ am satu laam dafa génn sànq moo fi teewaloon waa Amérique xam naa yitte da ko dablee ba mu génn waaye kàddu yi ngeen jël day dugg ci ay kàddoom rek ñu jox sëriñ Adi bu ñu noppee ñu jox su ñu jox sëriñ Assane Diop wa barakaatu sadit lisaani nawir janaani safi amaani wasid barahi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki daayira muxadamatul xidma ci àddina bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen balaq di leen balaq di leen jottali nuyoo saahibul fadilat Cheikh Mouhamadou Mountakha léegi laa jóge ci moom gannaaw takkusaan ak mboolem njabootu Serigne Touba gi waaye di yiital ci nuyoo bi al imaamul akbar Cheikh Afia Bousso ak mbokkam yu tedd yi ñu fekk di nuyu tamit sunu kilifa yi nga xam ne moom lañ bokkal àddina bi eh, waaye nag bala ñoo wal tudd fenn dañuy tudd sunu réewum bopp jëwriñ sëñ Mbàkke Njaay ngi toog ànd ak sunu kilifa ci Espagne gépp tey jii muy alaaj Moodu Jóob ndax képp ku la mag rek xam nga ne sa kilifa la waxuma laa muy koo xam ne kii ni ñun xam nañ pasteefam démb tey door a ñëw yaakaar naa man 83 wala 4 laa ko xamoon Mauritanie donte gëjoon nañoo gisee ñu ngi koy nuyu di nuyu mboolem daayira Espagne yi di nuyu waa Touba Cadiz di nuyu waa Generalitat Valencia yi Generalitat Catalunya Îles Balears Islas Canarias Castilla León Castilla La Manca Comunidad Madrid Tarragona ak mboolem province yi ci Espagne yëpp ñu ngi leen di nuyu noonu ñu leen nuyoo nag ñi leen ñuy nuyoo Europe yëpp tàmbalee ko ca England Scotland ñëw Angleterre ñëw France Hollande Pays-Bas comme ni ñu koy waxee léegi Belgique Portugal ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu suñu mbokki yi américains yi États-Unis ak suur Amérique bi Brésil Argentina paraguwaay Uruguay ak mboolem foo xam ne fii ne taalib bi mu ngi ci ñaari continent yooyu di nuyu waa Afrique mën nañ ko tàmbalee Côte d'Ivoire Mali Burkina ak mboolem ba Sud Afrique ba Australie ñu ngi nuyu ñëpp mbooloo mu toll noonu nag bu ko Serigne Touba amee ñuy ay taalibe di ay gor jaayante li nga xam ne moom Cheikh laa waxoon ne ku jaay sa bopp te fasoo yéenee jot ca njëgg kon amatoo ca dara ñun loolu la war a dundee te ñun ñëpp xam ne ne jumaa ji kuy dàq liñ digalul sëñ bi wala ak bëgg-bëggam ci jumaa ji nga koy dàkk gis nañ liggéey bi nga xam ne bii ne moom la fi sëñ bi joxoon daaw ak daaw jéeg yàlla suñu borom taxaw nañu ci ba mu sotti coleet yàlla nañ ko yàgg julli ànd ak sëriñ bi ak imaam sëriñ Afia ak mbooloom yëpp léegi nag mbubb waxoon naa ko fii dafa aaja fóot aaja paase di lem di denc soo bëggee boo ko bëggee waaje mu mu rafet kon ñu ngi ñoo liggéey tàpp yoo xam ne def nañ ci lu ëpp ñaari téeméeri million sonn ci def ci lu ne andi ko ñu naan dañoo manqué ay machine wala lu ko defar loolu moom day daal di bëgg a doon warteef woo xam ne wii ne ku mas a dugal saw ñaq ci liggéey bi ak ku ko ci dugalut loolu daf laa waral koo xam ne kii ne liggéeyu tàpp ya waroon na la kon ñëwal daw ci gaaw si ci entretien bi àddina bépp nag lañ ciy woo suñ ko sañoon dañ naan na ko waa France jël wala na ko waa Amérique jël wala na ko waa sidd Amérique yi jël yor entretien bi lii sëñ bi wax naan ay escalier ñun laajuñu ay escalier oto escalier lañ wax yoo xam ne ñu ne ñëpp gis nañ ko mooy SL yi ñuy liggéeyee ci Europe muy banque di jóg lu poto lampe bari bari oto bi day jékkatiku di mel ne benn ba yegg ca kaw ñu manipuler ko départ dellu ci beneen loolu la jumaa ji soxla waaye soxla wuñu ay seel yi ñuy yenu naan takkal bu ngi fii jubbantil fee waaw bu loolu weesoo ñi ngi wax naan ay setterne ak defif buñ ko sañoon dañ naan nañ jox ci pinc mii wala fu ko jege ab pàkk diaspora bi bënn fa forage boo xam ne bii nag uniquement jumaa jee koy moom ak li ci war yor ko seen mbir bopp parce que boo ñu demee hôpital ma limu foofu si ni hôpital forage nga ci biir akub satadoo mosu leen dégg ñu ne hôpital bi manqué nam ndox te hôpital bi ci doomi caati barkeb jumaa ji la bokk ak bu mën doon kon nag nan soññ suñu bopp xam li nga xam ne bii ne mooy lu ñu bëgg ak li nga xam ne moo ñu cee jëriñ ragal moom day xañ a joxe woon naa daaw joxe naa daaw jéeg déedéet ñëw ñu ko tàmbali ku àggale lañ ñee du dëgg ña fond waan jumaa ji lañ ca sonn sonn alhamdulilahi rabbil yaakaar nañ ne ku dugg léegi jumaa ji gis tappi da nga naan xanaa ko ñooñu defuñu woon dara ay ayca kon nag loolu la ñuy woo nit ñi di ci woo sunu bopp di ci soññ ñëpp jëwriñ june bu fi jógee fii ak réew mi mu dem mu ne na soññ boppam xane ne bii ne waajtaayu koor yi ak màggal yi ak gàmm yi loolu moom ay bis la wax naa ko ba tàyyi na Serigne Touba man du ma ko wutal bis ci màggal gi kuy defar bisi nit ñi sa bis taxul ngay wax moo defar màggal gi kon nag li nga xam ne bii ne nag moom ñun ñoo koy jëriñoo muy saayir sii lamp bu leer jumaa ju rafet ñun ñoo koy xool tàppi bu nooy ñun ñoo ciy julli bu set kasaalika naka noona kon nag loolu nañ ci taxaw ànd ci ak suñuy jëwrin sëñ Mbàkke yow nga xam ne yow ay jëwrini fédération bi toppal daayira par daayira jëwrin par jëwrin wax leen ko ni nga xam ne bii ne noonu nga leen waxe woon liggéeyub jumaa ji ñu xam ne bii ni ñun ñoo liggéey tàpp yi ànd ko àddina bi yëpp koo xam ne kii ne liggéey boobu ni ma ko waxoon raw na la daw sil gaaw ñëw ci lii loolu daal man laa ci amoon lu may wax ndax maa ngi nii damay dellu léegi sëñ Isaaxa ma ngi may xaar waaye nag yëgguma liggéeyu jumaa ji ñor moo tax bi ma sidna asan wooyee ma ne ko duma jàdd kër sëñ bi damay ñëw léegi wax ci li nga xam ne moo ci sama xalaat bu jubee alhamdulilahi rabbil alamin bu dëngee na ma baal ak lu baax laa jubloon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf jërëjëf sëriñ Adi kàddu gi rafet na lool jot na lool matal na lool li taxoon bi waa Espagne waxee ba noppi bi nga ñëwee ñu joxaat la kàddu gi lañ ci doon seeni yëpp jotaan nañ ko ci ndax saa boo fi ma si kàddu rek boo jógee kàddu yi positif lay doon positif yoo xam ne kuy déglu dëgg bëgg lu rafet bu ko déggee xolam dana ci sedd yàlla yàlla defal dégg ak topp kon dañuy jox kàddu gi sëriñ Assane Diop sëriñ Assane Diop mi nga xam ne daa bokk ci daayira Moukhaddamatoul Khidma waaye yàlla sunu borom dogal nag ci wàllu diaspora bi mu ci liggéey liggéey bu rafet rafet wàllu diaspora bi mu ci liggéey liggéey bu rafet rafet ba commission bi nga xam ne moo commission sociale relation extérieure nga xam ne moom sëriñ Assane ci la bokk ak bi Abdoulaye Bissou Thierno dafa génn ci yitte ak fa lu Mbacke Cheikh Touba mi ak yeneen nit waaye sëriñ Assane mi mi ngi ciy liggéey liggéey bu rafet ñu seere leen ne waxtu wu ngeen xamante ne soññ gi mu leen di soññi. ak yitt yi mu leen di yittewoo yëpp ñun ñoo koy wax mu soññ leen ci ndigalu daayira bi la te la ngeen koy jox tamit wala la ngeen koy wax lépp mu ngi koy jotalaat kon ñu ngi leen di seere loolu te xam ne sëriñ ah, Assane taxawaay mën na sëkk kon sëriñ jox la kàddu sànni kàddu bu noppee ñu jox sëriñ Abdou Lahad sa Muxtaar mi nga xam ne mooy wax ci turu sëriñ Afiya Bousso imaam aleykum salaam wa rahmatullah euh, ginnaaw kàddu yi nga xam ne moo fi wàcc Eh, muy kàddu yu cant kàddu yu ngërëm ak kàddu yu soññee eh, ñun suñu kàddu yi nga xam ne ñoo ngi koy yëkkati moom dafa jóge rek ci sëñ Afia ak ci daayira bi muy kàddu yu cant ak kàddu yu ngërëm eh, sëñ Afia itam moom wax nañu ñu wax ci turam muy cant ak ngërëm ak ñaan goo xam ne moom ñaan na ko suñu borom ci barke borom liggéey bi mu faj aajo yëpp ba yéene ju ci waay yéene rek nga am ci ngatandu ndax it euh, seede gi seede gi tamit wax na nu ñu seedal leen ko ndax daayira bi moom euh, sëñ Afe wax na ne moom waxtu wu yitte ñëwee rek bàyyi nañ leen ci xel te it séntu nañ leen ci te it euh, bi ñu wootee itam da ngeen wuy si ci bépp yitte nag muy ci koor gi muy ci màggal gi muy ci lépp lu aju ci ñi ci jumaa ji loolu yëpp seen seen jëf ñëw na ci jëwri ñi njëkk a wax itam daanaka buñ ci tuddee kenn wala ñaar rek tuddaale nañ ñëpp sunu jëwriñ mi ngi nii sëñ Mbacke Ndiaye euh, muy président fédération Touba Espagne kenn ku ne dégg dégg nañ kàddu yi mu fi yëkkati kàddu yu soññee kàddu woote kàddu yu cant euh, tey sëñ di wax na ko léegi ci liggéey bu sell bu mag bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko tànnoon jox ko Espagne ak ndam lu rëy loolu nga xam ne ci moom la ci Serigne tubaa defal waa Espagne ak àdduna bépp sax laay wax euh, Euh, ñun liñ ciy wax rek mooy soññee bu jëm ci liggéey bi euh, sëñ Bay Saw mi itam kenn ku ne gis na ne indi na fi kàddu yoo xam ne kàddu soññee la euh, ndax réew mi ñuy wax Uruguay bu duggee ci réew mi bu duggee ci ci liggéeyu daayira bi ci communication la ko déggee ndax sëñ Bay Saw mi moom moo jiite maanaam cellule communication diaspora daara ji nga xam ne tey président daayira sëñ Tuubaa ci àdduna bi yëpp dañ fay daje moom mii man maa nga fa Euh, nekk fa ak moom léeg-léeg ma yëkkati sama kàddu siyaare wax ci ne sëñ Assane Diop mu ngi xam mooy ki nekkal daayira Muxaddamaatul Xidma te sëñ Bay Saw mii ñoom dañoo taxaw ci lëkkale mboolem fu daayira sëñ Tuubaa ne ci àdduna bi rek di jëwriñ ji rek maanaam nga doon génn buum te foofee jàpp naa ne bu fa Muxaddamaatul Xidma di dugg ay kàddoom ñi ñi ñi ñi nga xam ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo représenté sëñ Tuubaa ci àdduna bi di ko fa dégg yaakaar naan ñëpp danañ wuy si te yàlla na ko ñëpp dégg ba si kon nag kàddu yooyu mooy kàddu yi cant yi ak ngërëm li liñ fi wax itam ci li jëm ci matériel bi moom dégg nañ ko euh, jataay bii nag sañaa Afia daf ñoo waxoon daaw keroog bi muy wax sax de ñoom ñëpp gis nañ euh, day wax bu mu jàgg mu soppiku mu wóor ne kon lii fees na xolom te it euh, man de man man damaa seede ne fii yitte juñ fi wax fii buñ génnee rek sëñ Tuubaa dana ko dana ko saafara. ndax sëñ di fii la toogoon daaw wax ne margu bii day romb ab kaat kaat mu yëf sëf ko wàcc ay tànkam di lang mu wax ca loola avant ñuy dellusiwaat fii oto yaa nga fa gaare yooyu jiite sëñ Tuubaa saafara na ko kon nag ñoo ngi jaajëfal ñëpp di jaajëfal tam sëñ Cheikh Diouf mi bàyyi ko France ak waa Uruguay ni ñu ko waxee waa Argentine ak Brésil ñoom ñëpp ñu fi teew euh, mboolem ñi fi teew daal ñoo fi ñoo fi teewal ñi nga xam ne teewuñu fi kon daal ñoo ngi sant ñoo ngi soññee liggéey bi nag sëñ Abdou Lahad maam Asta wax na yitte ji nga xam mooy yittey daayira bi yitte jooju nag woowaat nañ ci ñëpp ni ko sëñ Aadi waxe ni ko sañ Bàkke ak ñi ko ñi ma jiitu waxe kon daal sant nañ leen gërëm nañ leen fii moom sëñ Bass Abdou leeral na ko wax ne ne liggéey bi bari la taxul nga liggéey ci ah maanaam pësteef ak baax ak yëpp a ngi fi waaye sëñ Touba mooy tànn ñim ciy liggéeyloo kon nag ñi ci tàbbim nañ wóor ne nekkal nañ sañ Tuubaa fi ko gënal ci liggéey bi waaw kon ñoo ngi ñaan yàlla liggéey bi yàlla defal ci ñëpp am nga tandu Cheikh mun Mountakha yàgg fi lool te ànd ko wér sunu jëwriñ ji nga xam ne moo yor kàddu Seexul Xadim bitim réew muy sëriñ Mamor ambassadeur l'islam yàlla dëbb ko kàttan ndax liggéey bi ànd na ci daayira bi wër ci àdduna bi wane ko wane ko wax ci ne nañ ko dellowaat ci biir mbooloom sëñ Tuubaa mi yi tey ngeen xam ne ña ko yor ay loxo yu sell la yu set la man ñu fu ma gisul loolu duma ci yëkkati sama kàddu loolu sëñ Maamoor leeraloon na ko kon nag liggéey boobu rek lañ doon soññewaat di ci wootewaat xam ne bis bii moom bisu kañ la sax laay wax bisu kañ la bisu gërëm la waaye nag nañ ko jàppe ab soññi fedd li waat suñu laxasaay ci liggéey bi kon sëñ Laat xam naa ne kàddu yi moom moom dama koy gàttal rek waaw bu ko defee jox sëñ Abdoulaye Muxtaar waaw <laughs> kay na jootati na ñu sant yàlla bu baax nag niñ ko fekkee ren jii fekk ko daaw di ñaan yàlla sunu borom fekk leen ñu ko déwén di ñaan yàlla sunu borom te may ñu wér ak fanu gudd defal ñu xéwal yu bare bari may ñu alal yu bari nag yuñ mën a def toolu sëñ tubaab yi ndax mel na ne alal ak wér baax na ci noonu ndax suñu wér gii Sëñ Tuubaa lañ ko bëgg a jox suñu suñu yittee poos ji tamit fekk lu Sëñ Tuubaa yittewoo ñu def ko ci rek la ñuy wër kon nag war nañoo wër war nañoo am xaalis te seytaane mi fab bi lu ñu bari bari bari yàlla bu ñu fab bi yàlla ñu doon rek taalibe Sëñ Tuubaa yi Sëñ Tuubaa nangu suñu taalibe te liggéey bi tamit yàlla bu ci seytaane amu yoon yàlla buñ ci gis suñu bopp tamit yàlla nañ ci gis sëriñ bi rek ci bàkki Seex Xaadim kon dañuy yëkkati Muxtaar mi nga xam ne mooy wax turu Sëriñ Afiya ak tur daayira Moukhaddamatoul Khidma yëpp waaye di jote ay cant buur nañu ko daa defe di baaxoo defee sëriñ maam Mor Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Mourtada nga xam ne liggéey bii ab liggéeyam la te waxtu wu nekk lu koy yaatal lu koy yëwénal ma koy dox ma ngi koy wax ndax noonu ñu ko waxee rek bañoon na ko ba juróomi ay ndaw ànd na ñu wër ci taalibe sëriñ ci daayira sëriñ Tuubaa yi ci àll bi ngir bëgg boobu jafe xam ne dañuy soxla dara mu mën a ñàkk mu jeex ba taalibe yi xam ne daayira daayira Sëriñ Tuubaa yi ñoo war a mën a yor lépp lu yittewoo jumaa ji kon looloo taxoon yittewoon gis-gis boobu la ci amoon sant yàlla la ndax bari na ñoo xam ne dégg nañ e, wooteem bi ba nam ko doon waxee ñu ngi koy ñu ngi koy jëfe noonu kon ñu ngi koy ñaanal Cheikh Mamadou moom Cheikh Mame Mor Cheikh Mamadou Mourtala yàlla suñu borom yàggal ko fi tuural ko ba li muy yéene liggéey Sëriñ tubaa ci toolu Cheikhul Khadim bi mu eggale ko ci bàkki Cheikhul Khadim ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jox sëriñ Abdou Lahad bu noppee ñu def ñaan wasalaamaaleykum wa ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp ci turu sëriñ bu so mi nga xam ne moo jiite daayirat muqaddamatul xidma di yëkkati suñuy kàddu ci aw làmmiñam donte nag lot nañ ci lool ngante dab ko ndax xam ngeen ne waxtu wi dafa jot te mënut a ñàkk a dem taxawee ji liggéey bi nga xam ne moom la ko sëriñ bi di taxawuloo muy jiite ji jumaa ji mu digal nu bu waxtu jotee ñu sànni ay kàddu yu aw turam bala ñuy sànni kàddu yooyu it dañuy dogal ngant sunu mbokk sëriñ Abdou Lahad Thierno mi ngeen xam yéen ñëpp nga xam ne yàlla def na lu bari moom lañ daan yebal ci yéen ñuy ñëw di toog ci yéen di leen fekk ci barab yi ngeen nekk di wax ak yéen ci turu daayira bi di ko ànd ak sëriñ Assane mi ngeen xam ko bu baax a baax yàlla dogal tey jii ñu amoon ndajem famille moo xam ne ñun ñëpp dañ caa waroon a teew moom nag mu nekk njiit ci liggéey boobu ñun ñëpp ñu sàkku ci moom mu dem teew fa ci teewal fa jëmmam waaye teewal fa suñuy jëmmu nun ñi nga xam ne ñoo seq liggéey boobu bépp diis na nag sax sax lool ci moom waaye nag eh, yoonu murit moom bu ndigal xasee jóg rek lu mbir diis diis des koy jëfandikoo te moom ci ñoo ñuy la bokk kon ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bu tedd di rafetlu jataay bii lool di ñaan sun borom tabaraka wa taala ci barke Cheikhul Khadim mu def ko muy jataay bu mu sëriñ sun borom nangu jaboo jataay boo xam ne bu sëriñ Tuubaa nangu liñ fi yëngutu la bokk te am nañ ci yaakaar bu baax a baax mën naa wax sax ne yàqin lañ ci am di dellusiwaat tuuti rek ci kàddu yi nga xam ne jot na fee jib di sant ñi nga xam ne yëkkati nañ ko fi ñëpp muy kàddu yoo xam ne rafetlu nañ ko lool doon na kàddu yoo xam ne doy na sëkk ab soññee daanaka jërutoon teg yenn kàddu dafa tollook rek ku wax jox la faaw nga jéem a fexe ba dajale ay wax delloo ko waaye mel na ne luñ fi waroon a wax ci ay soññee luñ fi waroon a wax ci ay daggee luñ fi waroon a wax ci ab diisoo ci suñu diggante lépp. wax nañ ko kon jërë ngeen jëf danaa del si tuuti rek ci lu mel ne mbokk doon wax léegi ci mbirum jumaa ji muy sëriñ euh, sow mi sëriñ bay sow mi wax na dëgg lépp lu mu doon ci Touba rek jumaa jee tax bu ñu seetloo sax Touba qualification yi fi njëkk am yëpp ci jumaa ji la jóge ki fi njëkk a nekk maçon ci jumaa ji la ko jànge ñi fi njëkk a nekk plombier ci jumaa ji lañ ko jànge ñi fi njëkk a nekk électricien ci jumaa ji lañ ko jànge ñi fi njëkk nekk ay carreleur ci jumaa ji lañ ko jànge ñi fi njëkk nekk ay ferrailleur ci jumaa ji lañ ko jànge ñi fi njëkk a nekk lépp lu ñuy lu ñuy liggéey yu ñuy liggéey ci jumaa ji lañ ko jànge leneen la ca topp jumaa ji moo fi andi am ndox ngir ñu mën a defar jumaa ji wax na dëgg forage bi fi njëkk am 1948 lañu ko bi muy forage su daaru mën naan bee jumaa ji moo taxoon ñu andi ko fi lu ko jiitu ñeenti na lañu defoon ci li wër jumaa ji bu nawetee ñu di ko root ci déeg yi di ci ba mu fees dell benn baa ngi ci kër sëñ bunt kër ba léegi amoon na kër bunt kër sëñ Mourtala amoon na bunt kër sëñ Mbacke Madina amoon na fii kër sëñ Touba gi nekk yooyu lañ daan root daan ko def kon ndox jumaa ji moo ko andi Touba marché bii itam di barabu liggéeyukaay sëriñ bi moo woote woon jumaa ji nit ñi ngir nit ñi di ko julli si boobu dëkk bi ko nii mu toll mu bëgg nit ñëpp di julli si ajjuma mu def samp fi marché okaas di ko woote ajjuma ngir nit ñi ñëw di man di julli si ajjuma bi jumaa ji noppee it lañu la euh, raay bii nga xam ne itam moo njëkk ci aw yoon moom jërul ñu di ca dellu yéen ñëpp xam nga ne moo doon a galgal bi tubaab yi defaloon Cheikh Mouhamadul Moustapha waaye joraay jumaa jee ko fi tax a ñëw muy chemin de bi bi tëli amee itam tëli bii jumaa jee ko fi indi preuve bi mooy ba mu jógee Ndakaaru ci buntu jumaa ji la yemoon sax doon feneen loolu ñun ñii di gone sax fàttali nañ ne euh, bopp tali bi nekk ci buntu jumaa ji kon lépp lum mu mën a doon li mu wax nii ne lépp jumaa jee ko waral kon lu ngeen fi gis jumaa ji moo ko waral ñu njëkk a oto sax ci jumaa jooju lañ jàngee oto kon dawal oto sax ci lañ ko jàngee euh, kon lépp rek jumaa ji la wax na dëgg jumaa ji mooy lépp ndax moo doonoon bëggu Serigne Touba gi nga xam ne Serigne Abdoul Ahad Mbacké wax na ni di sunu kilifa. nun ñëpp waxoon na ne euh, ak bëggam ñett lañ ci mas a xam waaye leneen lu ko waaye mas a jox tegal foofu la lay def kaamilu alxuraan rek nga daan nga ko daan yëkkati jox ko mu ne la mu nangu ko ci ñaari loxoom waaye leneen lu mu mën a doon tegal foofu la lay wax ak bëggam nag yi mu ci digle woon euh, jumaa ji moo ci jiitu woon xam ngeen ni jumaa ji digliwu ko sax yem ci waaye dafa dox jëm ci ba taxawal loo xam ne nii ba mu ko fi bàyyi te jamono jooja mënoon naa defar jumaa ji bu ca ay yàqu dugutoon yu ngeen xam yéen ñëpp kon loola mooy doon defar jumaa ji waaye yàq googee nag suñu ndimbal la ndimbalul taalibe yi ñëw ginnaawam la ndax bu amutoon kon ñeneen ñi ña ña jiitoon ñoo ci seen loxo kon wa saabixoon a saabixoon la ñuy wax waaye kon suñuy bàyyi jur ñun ñii duñ ci man a dugal seen i loxo ndax booba suñuy maama ci doon dugal seen loxo waaye kon suñuy bàyyi jur duñ ci dugal seen loxo mbirum sëriñ tubaa nag toppum siti la ci sët lay gën a aay ñoom maam defoon nañ ci nekkuk sëriñ tubaa ñoom bàyyi defoon nañ ci nekkuk seex muhammadul mustafaa ak nekkuk seex muhammadul faadil loola lañuy jariñoo ba tey njariñ loola nag bu mu ñu gëlëm loo nañ ci gën a góor góorlu bu baax te xam ne ñoom ñooñee lañ defoon seen bopp lañ ko defaloon xéwal gu tuuru rek moo wala ngaa dal ci sunu kaw buñ xéwal googu tuur wala ngaan dal suñ kaw nag buñ ko jàppee buñ ko jàppee suñ mbirum bopp amoon naa maam joo xam ne dafa daan wax ne barke na na dal sa digg bopp waaye jege barkeb jàmbur bu mu tax nga di ko bànneexoo bu mu tax nga di ko bàkkoo bu mu tax nga di ko tiitaroo ñun ñii fi nekk nag ci jamono te jamono di dund ñi ci ëpp ci barkeb jàmbur la ñuy dund kon nag nañ fàgg suñ barkeb bopp kamayoon ñooñee barke ba nun ñu di ci dund kooka mi ngi fi jógu fi te lam manoon tey la ko gën a man te buñ ko wutee na ko ñooñee wute woon amee ko nu ko raw te wutin wi nag léegi la gën a yomb wutin wi léegi la gën a yomb ku nekk ci nun ñii waxuma la sa maam waaye sa way jur wi nga jur rek fi nga toll li nga man bam fiy toll mënu ko woon doon ak yaa fusam nag jamono tolloon foofa waaye li neexal jamono tey ñoom ñoo ñee ñoo ko liggéey démb lii mën a neexal jamono ëllëg nag ñun ba bu ëllëgee suñu njaboot mën caa bokk ñun ñi ñoo koy liggéey tey mu jëpp sa bi mu réer nag mooy ña jiitu liggéeyal la ba nga mën cee xewlu yow bàyyi woo xel ñii ñëw sa ginnaaw ba mën leen liggéeyal luñ mën a xewlu tool bi nga xam ne nag du gàntu du booy du yàqu loo ko jox mu delloo la rendement ba gën a sakkan tool boobu mooy mooy Sëriñ Tuubaa alhamdulilahi rabbil alamina nag Cheikh Abdoul Ahad waxoon na ne xol yu gantu moo gën xol yu nangu moo gën tool yu nangu te xol yi nangul nañ Sëriñ Tuubaa te dootuñ ko gàntul loola nag firnde ja feeñ na ci ñaari aj yi ñu romb ndax ati bekkoor lañ toll yoo xam ne jafe-jafe yaatu na ci àdduna lool mboolem ku gëmul yàq yàlla rek sab xol jeex na saw fit dem na yaa ngi rët fu ne nga jëm fa waaye seet nañ seetlu nun ñi xam ne ñooy waa kër Serigne Touba ah xaw ma feneen de waaye fii ma xam moom di biir daayira Muqaddamatul Xidma gii biir ati kiris yii moo ëpp doole fuuf luñ ci def ci biir at ya nga xam ne doonu toon ati këri kiris kon loolee Serigne boo xam ne xol yi nangu moo ëpp doole mbay mu nangu te xol yi nangu leen Serigne Touba te mënusu ko gàntul lii ñu dépensé ren jii ci kooruk ren mësuñu koo dépensé ci koor gàmmu gee ñu weesu lañ ca dépensé mësuñu ko dépensé ci gàmmu màggalu daaw lañ ca dépensé mësuñu ko dana dépensé ci màggal lu ko jiitu lu may tegoog ren ñaarte na ko ci ay dépense ndax ren liggéey bi rëy gum rëy moo tax dañ ko anticiper suñ fàllu ngi nii toog ci weeru tamxarit bi ñaar fukki fan juróom bi mu ko amee la liggéey bi tàmbali te de benn fanub euh, safar la daan tàmbali kon anticiper nañ ko lu néew néew néew juróomi fan yu ko jiitu li fan mbooloo mi ci biir jumaa ji la nekk gis nga waañu waa jumaa ji fii la daan nekk ñu dénk ko sëñ Afi mi egg na ci diggante daaw ko ren xajatul fii ba dañ koo génne li tubaab yi wax anecdote sax danaa leen ko ci wax mooy ne ren dépense bi nga xam ne moo yor ñi doon màggal si nga xam ne ëpp nañu junni nit nekk fi mën naa wax ne li tàmbalee diggante vingt cinq euh, muharram muy tam xarit ba 22 ci weeru safar bii ñu nekk dem na ci fukki million ak benn ak lu topp te lépp seen loxo yi ak loxoy bokki taalibe yi rek ci la bàyyi koo jëm ci ñoom te lii may wax ndawal bokku ci ndox bokku ci yeneen rek yeneen dépense rek gis nga dépense yi nga xam ne moom la ñu dépensé ci ci ci ci ci euh, magal gi romb na ñaar fukki million di way liste baa ngi fii ci sama téléphone bi léegi la ma ko sëñ bee envoyé te loolu luñ jënd la de loo xam ne dañu ko bet dem jëndi ko bokkul ak li nga xam ne dafa ñëw kon daanaka mën naa wax ne lu mu néew néew néew néew su ma bañu doo trompé dépense yi màggal lu mu néew néew dana coûté daayira Muqaddamatul Xidma fanweeri million lu néew néew damaa bëggut a joxe lim bu bu bu sus ndax jàpp naa ne mën na ko ëpp waaye naa yem foofu ndax ginnaaw liñ génne jëndi képp mat na ñaar fukki million ak nangam te liñ jëndi wut boo ko jalee daanaka jege na lañ jënd da ngay xam ne romb na foofu. lii may wax nag ma nga tàmbalee ca entretien ba ba ci bi ñuy yeewi gan mi loolu nag su mënee am taalibe Sëriñ Tuubaa ñoo ci jàpp buñ ci mënee jàppit xam gi nga xam ne bëggu Sëriñ Tuubaa la gu wér moo tax ñu nangu cee jàpp ñu ci jàppe ñun ñii fi daje tey nag war nañoo sant yàlla bu baax a baax. suñu borom dafa waxoon ne e yéen nit ñi dama leen bind def leen ay xeet ay giir ak ay peuple ngeen tasaaroo ci biir àdduna bi waaye nag dama ko def ngir ngeen xamante di taarafu nun ñi fi daje ñu ci bari ñépp yéen ñi ñëpp senegal ngeen bàyyi ko woon nekk fi ganee fi àdduna ba nekk mu kàllaf door fee jóge dem ñëwee ca continent Europe ñii ngi ci continent Afrique ñii ngi ci continent Amérique ñenee ngi ci Asie tey jii suñu borom ak liggéeyu Sëriñ Tuubaa dox tax ñu dox ba daje ci benn saal nii ngir xamante sëñ bi wax na fi kaddu gu am solo wax gi wax na ñun ñëpp dañoo war a lëkkaloo ci génn buum ba lépp lu jógati ñu diisoo ci waxtaan ba yëkkati loola yëkkatee ndoo ko li taarafoo jooju day ñëw est-ce que taaraf boobu xamante boobu moo indi lépp mooy indi lépp ci àdduna moo mën a indi lépp ci àdduna kattan gu ngeen fi gis ci àdduna rek mbooloo mu ànd ko def al ittihaadu xuwa bennoo wala booloo dañuy wax ne mooy doole la ko Cheikh Mouhamadul Fadil waxee woon nag daf ne woon mbooloo bu ñu àndee bu ñu bokkee pas-pas bokk yéene ànd di jëfandoo di defandoo di bàyyandoo lu ñu jéem man ko kon ñun ñii fi daje jàpp na ni ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw ñëpp bu ñu àndee takku ci wenn say ba am benn pas-pas rek te mooy liggéeyal Serigne Touba lépp luñ song moo xam mu jëm ci jumaa ji moo xam mu jëm feneen moo xam mu jëm sax ci sunu biir ñun loolee sunu borom daf daf koy yombal. ñu ngi leen di sant nag bu baax di leen gërëm di wax rek ne ñu ngi gërëm fondation Amérique dañ fay waroon a teew waroon a jël kàddu yàlla dogal yitte dab sañu am satu laam ba teewul waaye ci turam. ak turu sëriñ Cheikh Jonn soxna Maymuna ak soxna maam Jaara ak ñañ ko seqal ñu leen di seereel ne ñu ngi ci suñ biir nun ñii tey jii nii ngeen nekk ci suñ biir di leen sant bu baax di leen gërëm ci seen taxawaay nii ngeen amee taxawaay bu rafet bii rek noonu lañ amee taxawaay bu rafet bi ci fañ nekk amoon nañu pas-pas bi fekk si lii itam lu ne nga teewe ko nag yàlla rek moo ko man ngant moo waaye daana ko teewe kon mën nañ ko fee teewaaleel ñun ñëpp kenn ci ñun ku nekk mën nañ leen fee teewaaleel kon ñu ngi leen di leen gërëm jumtukaay yooyu ñuy soxla nag day gën a yeweneel liggéey bi rek waxtu wii daaw bi mu fi toogee ñi ngay waxtaanee tapis yu sëriñ bi jox waa ñenn ci waa diaspora bi muy waa Espagne waxoon naa ne ca déclaration bañ doon wootee ne euh, ndigal bu jógee faaw mu am fu mu jëm kuñ ko kuñ tudd ne ko yow mii lañ jox ndigal li waaye ndigal li ñëpp ko bokk képp ko bokk ci muqaddamatul xidma foo mën a nekk nanga fexe ba saw ñaq dem ca loolee def nañ ko bu rafet defin wu rafet jàpp naa ne ñu bari ci ñun jàpp nañ ci liggéey boobee kon loola ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm sëñ Mbàkke waxoon nañ ko waaye ñu ngi koy waxaat ci kanamu àdduna bépp ñu fi teew ñëpp di wax ne loole ñu sëriñ bi boole woon ak yéen ñu ngi leen ci sant bu baax di la yóbbante ak cant nag ci mbooleem kilifa yii teew te teewal fi ay réew ñu jottali leen suñu cant ci ñoom ak suñu ngërëm ci ñoom ci liggéey boobu nga xam ne sëriñ bi boole nañu ko yu bokkul fu ñu jóge nga sant leen ab liggéey ñu ànd liggéey bi ba mu jeex te kenn déggu ci coow kenn déggu ci werante kenn déggu ci xuloo te muy li sax ci xaalis kon jërë ngeen jëf yàlla na leen suñu borom fay loolu rek la sañ bëgg mooy ñëpp àndandoo nekk benn xam ne li leen boole moo ëpp alal moo ëpp kàttan doole moo ëpp wërsëg moo ëpp lépp loola mooy ngëm ngëm ñun ñëpp suñ gëm moo nu boole muy gëm gun gëm Sëñ Tuubaa tat bëgg koo liggéeyal mooy mooy leen boole loolu nag moo ëpp lépp yi nga xam ne moom la ñuy soxla ci ay jumtukaay daanaka jërut ba delluwaat ñu si ëpp sëriñ bi dellu na ci bu dee lu mel ne SL automatique bi gis ngeen ni ren li gën a yokk anticipation liggéey bi mooy barabu Cheikhul Khadim bi at mu jot dañ koy euh, euh, safo di jël ay ay ay ay ay di ko lonkale ba mu egg ci kaw diggante boo xam ne ëpp na fukki mètre ak juróom ci kaw wax na dëgg sëñ Blaat wax na dëgg jamono weesu na foofu ñaareel bi itam ñeenti fan wala juróomi fan yi muy téye barab bi war nañ sa warees na koo mën a def lu mu ga ga war naa mën a wàññi ko ñetti fan mu des ñaari fan te boo amoon échelle automatique yooyu nga xam ne dangay taxaw rek am na mbokk mu ma ko yónnee woon ci ay foto sax ay jamono xam naa dama koo ko teewlutul ba xam mi ngi sama téléphone am déet waaye kon dama koy génne sax wane ko ba ñëpp gis ko waaw waaye yooya da ngay taxaw rek muy jóg di jóg di jóg ba toll fa nga soxla bu dee cristal yi nekk ci kaw nga mën a nocci nocci nocci nocci nocci ba mu egg nga fëgg ba mu set nga wàcc cristal yi ñu raxas ba mu set nga yéegalaat wékk du la coûté ñaari fan yooyu monté ay ay safo ak ñaari fan yooyu démonté ay safo ñaari fan yoo monte ay safo ak ñaari fan yoo yoo démonte ay safo ñeenti fan la bu dolli koo ci ñaari fan yoo ko liggéey day nekk juróom benn fan loolu nag jàpp naa ne jamono weesu na ko te ñu it Sëñ Tuubaa weesale nañu ko kon nañ ko jéem a weesu ay oto aspirateur li wër jumaa ji lépp dañ koo paawe dañ ci fanaan alxames daayira xidmatul xadim ak yeneen daayira yi nga xam ne ñoo aju ci muxaddamatul xadim tey bale foofu yëpp dañ ci sonn lool di egg ci di ko raxas di ko kii te ay oto am na yoo xamante ni bii dañuy am ay aspirateur am ay boros yoo xam ne mënoon nañ guddi gu jot ñu boros ko ba mu set foofu la jamono toll léegi ñu ngi ko gis ci aéroport yi di ko gis ci euh, barab yu baree baree bare yooyu it nañ ko gaaral lépp lu ci sëñ lu lépp lu ci dajeeg tawfeex Sëriñ Tuubaa rek day ñëw te des ci sonn ndax sëñ Assane wax na ko léegi heure bi daaw ay corbillard lañ doon wax tey ñaari corbillard a ngi fi te man naa am sax balaa yàgg ba yeneen yeneen ñëw euh, loolu kon lu am solo la loo xam ne mat na yi bàyyi xel moom itam am murid nag jàpp naa ne fa mu gis lu baax rek Tuubaa la ko gën a yéene rawatina barabu Sëñ Tuubaa bi trottoir yoo xam ne day day ay trottoir lay doon maanaam ay ay ay ay lay doon yoo xam ne da day am ay pneu yu yu dëgër yoo xam ne yu mel ne ay roulement lay doon yaakaar naa da ngeen ko gis ci société yu mag yi ñu di ci wàcc wàcce yenn uh, conteneur yu ndaw yeeg yooyu boo gisee sax ci aéroport yeeg da ciy am nga xam ne boo ko andi nii sa benn loxo sax mën nga ko puus mu dem xam nga ne weesu nañ jamono weesu na fu ñuy gàddoo kenn ku nekk benn tapis jëlee ko ci uh, yóbbu ko lu mat ñaar ñaar uh, téeméeri mètre wala ñaar téeméeri mètre la gënoon noppale mooy ñu jëleen tapis yi lu mat ñaar fukki tapis wala nangam teg ko ci benn trottoir puus mu dem kay jël teg fee puus mu dem ñu yegg ñu egg teg ñu egg tag fu nekk ambition rek la nañ xool rek fa gën a sori maanaam toujours nit ki day fixé ay ahdaf ci kanamam xalaat ne man kat jamono ngi dox kon man war na maa dox Sëñ Tuubaa nag dafa ñoo digaloon ni saa bu jamono bu ngeen àndee jamono ba gis muy dox ci loo xam ne naqariwul yàlla dox leen ànd ak moom ndax su ngeen ko deful dana jaar ci seen kaw jàll. kon yooyu loolu it mat nay bàyyi xel bu baax a baax ay aspirateurs yi nga xam nag Sëñ Afiso ñëwoon na ci defe naa bi waa daayira France di di jébbale kooku duma ci. ba kàddoom moo gën a kawe sama kàddu lam ci wax ñun ñëpp dégg nañ ko machine à laver tapis yi itam waxoon nañ ko waxoon nañ ci am nañ ci benn li ci nekk rek mooy benn bi benn machine bu war a fóot nangami téeméeri tapis daanaka lu mat junniy tapis yéen ñun ñëpp xam nañ ne diis na ci machine ñaareel bi itam mooy euh, yaatuwaayu machine bi itam léeg-léeg day am yenn ti tapis yoo xam ne xëy na du ci xaj ndax dañ ko defoon ñoom format boo xam ne euh, tapis yu bu bu ëpp ñetti mètre ngir mu fóot ko day xaw a jafe. lu ñu commandé dong la nag nañ commandé woon ba mu mat ñetti mètre manees naa commandé ba mu mat juróom mètre wala juróom benn mètre wala juróom ñaari mètre ba nga xam ne lu tap bi yaatu yaatu daf koy mën a fóot dañ ne woon siiwa am loo xam ne mën naa fóot moo tax bañ koy song lu ñu am rek jël. xam nañ ne sëñ Tuubaa moom loo koy yen yow yaay xalaat naan des na ko mën ak desu ko mën waaye sëñ Tuubaa attan na lu ëpp loola te xol yii nga xam ne ñoo ko wutoon tam attan seen i xol moom attan na lu ëpp loola te seen kattan itam seen kattan itam bañuñ ci dara te luñ ci song sëñ Tuubaa koy daanal boppam kon yéen galgal rekk leen ci war waaye jël ba moom sëñ Tuubaa koy def seetar ndox nag moom ñun ñëpp maase nañ xam ne farata la moom te ñaar ñi nga xam ne ñoom lañ nekkal ci dëkk bi ñuy suñuy bokki luy liggéeyal sëriñ Touba benn bi ni maa u rahmati beneen bi ci des di Touba ci kanam liñ leen di sollicité kenn sollicité wu leen ko ci dëkk bi ngir dafa nekk lu mënta ñàkk te nag dañuy ñoo xam ne ñëpp dañ leen soxla te buñ sañoon it fii du du ko tumuranke waaye léeg-léeg mu xat lool ci ñoom ba tax na buñ sañoon loolu moom mu teggiku leen nun nu am loo lu ni mel loo xam ne dañuy egg sax ci di leen jàppale ci liggéey ba ñuy def ba nga xam ne bu ñu a jàppale sax ci liggéey boobu def ci wàllu social kon yooyu yenn la ci nga xam ne kilifa yi tuddoon nañ ko ngir ñu war cee mën a jàppe ci liggéey bi ñoo ngi sant nag bu baax ci lañ weesu di sant bu baax ci lañu toll di séntu ne it cant gu ko raw moom la ñuy am ci liñ jublu di ñaan ñu bokk fi daje ni ngeen déwén kenn bañ a manqué kenn ku nekk ak mbooloo ma nga xam ne moom nga bàyyi ko ku ca mën a bokk ku mën a doon muy ku ca jëf mbaa mu amoon yéeney jëf ca mbaa mu bànneexoo jëf jën cay jëf sun borom fekk ko fa ak ndimbalam fekk ko faak tawfeex Serigne Touba gàttandu ko tawfeex Serigne Touba ba lépp luy yéeneem mu man koo defee na mu ko bëggee ci barke Cheikhul Khadim ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm bu baax di jégalu ci kaddu yi dañoo fekk ci ak xaw a lompañ mënuñu ko matalee ni nga xam ne noonu la ko sëriñ ba santaane woon te it mënuñu koo wuutu ci ay kàddu moo tax dañuy jéem a tënk rek foofu di ñaan ci seen mbaax lépp lu ci manqué ngeen mottaleel ni ko ci seen xel mu rafet di wax ne yàlla nañ fi teewaat na gën a déwén kenn ku nekk fa nga bàyyi ko woon te war faa dellu yàlla na la suñu borom sàmm ba nga dellu fa ci jàmm boo demee ña nga fa bàyyi ñëpp nga fekk leen ci jàmm ànd ak ñoom ci jàmm liggéeyal Sëriñ Tuubaa ba waxtu sa waxtu delsi jot nga delsi te booy del mu nekk nga nekk koo xam ne saaliman lay nekk xaaniman ngay nekk koo xam ne day mucc ànd ak xewel yu bari yoo xam ne du ma sa àgg ci lu xéwal yi ma sa yaatu yaatu yaatu ci moom Moustapha àgg ci xéwal te liggéeyam Serigne Touba bii lal tay ko ci moom te lépp lu ñu yéenee liggéeyal Serigne Touba yàlla na ko Serigne Touba jàppandal ban mën ko ko defal lépp lu nar a doon am ndok suñu digganteeg Serigne Touba liggéeyal Serigne Touba yàlla nañ ko suñu borom fëlal lépp luy xéewal goo xam ne dana mën a tax nu jàpp na dana mën a jàppandal ab liggéey itam fu mu mën a nekk lu mu sori sori yàlla na ko suñu borom ñoddil te bu ñëwee yàlla nañ ci jot te buñ ci jotee yàlla nañ ko def ci liggéey bi Serigne Touba bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Abdou Lahad tabaarkàlla jot na sëkk moom wax na lool di ñaan yàlla rek yàlla fay defal ñu dégg ak topp. waaye di leen nuyoo léegi sëriñ Abdou Lahad Bousso Afia mi nga xam ne mooy secrétaire général daayira bi moo mooy secrétaire daayira bi ci nekk ci jotaay bi ak sëriñ Mokhtar Kane mi nga xam ne moo jiite communication bokk tamit ci organisation waaye di leen nuyoo léegi sëriñ Djili Bousso ak sëriñ Fallou Seye mi nga xam ne ñoo yegg ñoo nekk ci MKTV di ci liggéey liggéey bu rafet rafet di nuyu mbokki taali bi fi nekk yëpp di leen jaajëfal di ñaan ñu fekk ko daa déwén ak jàmm te luñ mën bu déwén ñu mën lu ko ëpp. te am xéwal yu bari te mën koo def ci sëriñ Touba wasalaamualeykum wa rahmatulah kon si blaat bu sa mutalib nga def ñaan. Euh, waaw defoon ko daaw maa ngi ñëw léegi incha allah ah xanaa di wax rek ne dafa am loo kàddu yoo xam ne lu ñu waroon boole ci biir waxtaan wi la mooy kere bi ñuy liggéeyee ba yeewi ko ci jumaa ji te waxoon soxla yi ñu wax léegi lim ko léegi sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir dafa waxoon ne moom kenn du ko jiitu ci njëkk ñi ci njëkk barkeelu lay bokk dana ca barkeelu ngir so ngir euh, soññee ko taalibe yi barkeelu boobee mu waxoon nag joxe na ko moom ngir soññee ko ñëpp loolu day laaj ñoo xamal ko ñëpp waxta wax wax ko mu leer nañ ndax da ko waxoon ci kanamu àdduna waaye àdduna sépp nañ seere ne nam ko waxee woon na la ko defee jërëjëf sëñ Abdou Lahad Mokhtar kon kàddu yooyu rek moo fi moom lañ fi doon indi tey jii sëñ Lamine Kane mi ngi nii jógee ba Malaga bokk ci jëwri ñi nga xam ne ñooy ànd di liggéeyal Seexul Xadim ci jumaa ji euh, mu ñëw nag teewal fi tam sëñ Maam Thierno euh, Mbacke ak teewal fi waa ahlu bu Touba Espagne ci njiital sëñ Mbacke Ndiaye nga xam ne ñoom ñëpp tey jii euh, sëñ Lamine mi lañ yebal muy seen ndaw. moo nga xam moo fi teewal ahlu xasida yëpp fii ci Espagne tey jii sëñ maam Thierno moom sëñ Abbas itam di suñ jëwriñ naroon a ànd ak moom mu am ngànt tey jii ba ne ko boo demee rek ngeen teewal na fi kon sëñ Abdoulaye Muxtaar loolu dem faw nu seedal ko sëñ Afee seedal leen ko waaw jërë ngeen jëfati waa kay